Hassan ñu ngi lay siyaare bu baax di jiital ci nuyoo bi Serigne Muntaxa Mbacke Khalif Sall di Mourid yalla ko fi yalla yagal te wéral ko ta katanal ko ndax limi yene lepp ci l'islam ci joktai, bi yalla defal ko ko nam ko bëggee tan and ko mom li ñu leen jox tay ba tax ngeen ñew ci suñu kër gi li ëpp ci njaboot ak sëñ Malik ak Serigne Malik ñi ngi tok ñi ñewutit joxe nañ seen kàddu ne ànd na ñoom ñun ci jataay bi nuyu leen ci turu sëñ Murtada si ma nga mbaabaan ak sëñ Mor mi nga xam ne mooy sëñ Mor si xalifa sëñ Mor nekk gasaan Touba gasaan muy genn kàddu rek ñun ñëpp ñu bokk ko waaye man ma di ko wax lii ngeen sumb nag ci muy ndigal loo xam ne yàgg naa jógee ci kër sëñ Touba dugg kër maam Cheikh duñu wax guléet loolu moom moo ñu mag man damaa wax sax ni moom ak sunuy baay ndax diggante maam Cheikh la ak Sëñ Touba te lépp ndigal lu mos a jógee kër Sëñ Touba dugg kër maam Cheikh mosta booy na ko Sëñ bëggee rek noonu la koy amee ku fi mos a toogal Sëñ ak ku fi mos a toogal maam Cheikh it loolu rek ca nga sosu ba bisab tey bii kon nag yéen amu leen liggéey amu leen ko yéen amu leen liggéey yéen bay Fall yii amul leen liggéey ndax da ngeen a jaayante te jaayante ga la tàmbalee ci maam ba léegi. dara yàquwu ci kon nag ndigal lii ñëw na fii tey liñ fas yéene ñun daañu ko ànd ak yéen ñu ci séddee ne ñun mooy ciy suñu cër daañ ko ànd ak yéen ba mu jax tàkk kon yéen lii mooy seen doono tey jii xam naa ni sëñ bi moom lim mu santaane incha allah ni mu ko bëggee dina ko naamee ñun nag njabootu sëñ moom li ci fas yéene mooy ànd ko yéen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yi taalibe yi ñu ngi leen baax. di leen siyaar bu baax di leen nuyu ci kàddu sëñ Badar bi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Abdoulaye Diané sëñ Badar ak ay doomam ak ay taalibe ñoom ñëpp ñi nga àndandoo nekk ci gannaaw ndigalu sëriñ bi sëñ Badar ñuy xamle ne moom njaboot am nañ pas-pas ànd ak yéen ci liggéey bi ni ko bi bëggee di ñaan ci barkeb sëñ Touba suñ borom yàggal fi sëñ Muntaxa yàggal fi itam xalifa maam si Ibrahima Fall di si am ni Modou Mbenda mu yàgg jële ndigal ci sëriñ Muntaxa yàgg koo jottali ci njabootu sëñ tubaa gi baag si ci kër sëñ Ibrahima Diané gii gii kër nag kër sëñ Touba la mhm. waaye itam këru ndigal la mhm. imam si Ibrahima Fall daana wax ne sëñ Abdoulaye Diané da yor sama ñooñ ma yor ñooñam kon nak ndigal lu bayiko ci keur sëñ Modou Moustapha keur sëñ Touba jaar keur imam maam si Ibrahima Fall ñew keur sëñ Abdoulaye Diané sëñ Badar neena nangu na ndigal li moko jele ci mom ndigal sëñ Badar neena nangu na ndigal lu fas ko yéen and ak yeen moko jele ndigal ci moom laa ilaaha illallaah